ñi nga xamante ni ñoo ko doon taxawu tàmbalee ko sëñ Cheikh Thioro di doomam di porte parole am di loxol ni jooram ak si ci sëñ Cheikh Adramé mi nga xamante ni ku ne xam na taxawaayam ci lépp lu yaatal njub ak lu baax di ab journaliste di ab ak ñun ñi nga xamante ni ñett ñoo seq liggéey boobu nga xamante ni dañuy war mbooleem kilifa diine yi ci réew mi mbooleem xalifa yi kenn ku ci nekk ñu jël ci yow image muy wax ngay dégg ak di gis seen diggante maam ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye seen diggante ak Cheikh Sidil Muxtaar ndax loolu li ci liñ ci jublu woon muy benn la yi nga xamante ni Cheikh Sidil Muxtaar dañu woon bi mu toogee la ni bëgguma dégg lu dul ab jullit ñëpp ànd nekk benn ndax Seydul Xaaji Maalik mooy Sëñ Tuubaa Seydou Sëñ Maam Seydou Xaadim Maalik naka noonu kilifa diine yi ci réew mépp loolu nag ñu bëgg ko jëmmal ci gis ak wax loolu incha allah rabbi muy ab film boo xamante ni mbooleem xalifa yi wax nañ ci mbooleem gëstukat yi borom xam-xam yi ñu koy amale fii ci Thiès muy projection de film ci promenade Thiès soir di samedi le 24 ci 19 heures rek bu jotee maanaam 7 heures ci ngoon bu jotee ñëpp dañ fa daje. ان شاء الله ربي كو نيك دا نا خم ماك ني لا ني سيخون واي شيخ سيدي مختار لان موي اب ليغييام واي نا ليغييو ماك يو باخ ني مو سيخولون دينا جي با تاي ني كو جويتو نوبيغو ني نانتو لون سبحان خليفه بي دي شيخ سيني منتخا خامني مو ووتو تاي جي شيخ سيدي مختار لب ني امي كي ديغلام daa amee ci ndigalal ki nga xamante ni moo fi nekkal Cheikhul Khatim nekkal fi xalifa bi sëñ Saliou Touré ak mbooleem jëwriñu lislaam yi incha allahu rabbi kii jiite liggéey bi nag fii ci Thiès monsieur le maire Talla Sylla moom mooy parrain bi waaye nag ñu ci invité ñëpp yàlla dogal na délégation yi dana jóge fépp ci réew mi dana jóge fépp kon ñu ci invité ñëpp rawatina nag ñi nga xamante ni la yàlla def ndombal tànk ci réew mi dala ko ci président ba ci premier ministre ba ci ministre yi nekk Thiès yëpp ak autorité yi gouverneur monsieur le préfet ndax kuy def dara ci dëkk war ngaa woo ñi seq dëkk ba euh, ñuy def nag invitation spéciale euh, di Ablaye Dieye nga xamante ni taxawaam ci dëkk bi rafet na di invité invitation d'honneur Mouhamadou Ngingue bu Itekom di ko defit Babacar Pascal Ndione bu impôt yu di ko defit Babacar Fall BF di ko def it wax dëgg yàlla ki nga xamante ni Maodo Malick Mbaye di ko def it ministre Thiono Alassane Sall di ko def it wax dëgg yàlla séen bu njegeen ñun ñëpp ndax ay kilifa lañ ci dëkk bi war nañ leen boole ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi def di ko def aale eh, ñaa di nag mbooleem ñi nga xamante ni ñooy opérateur économique yi moo xam waa INACO yi la ak fu ñu mën a nekk rawatina nag daayira yi nga xamante ni ñooy daayira yi Seexul Xadim yi ak daayira yi yu jofew ci tarixa tijaan ak tarixa xaadir daayira yëpp ñu ngi leen di woo rawatina nag kër Cheikh Ibrahima Fall Baal murid wal muridaat jëwriñ ja nga xam te ni moom la ñu cëral lépp lu jëm ci kër Cheikh Fall lu am ci ci bis bi mooy Serigne Mourou Fall moom Serigne Sidi moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Ibra ak mbooleem ak njabootam ak ay mboolem ay bokkam ak mboolem ay kilifaam kon sëñ Modou ñu ngi koy xaar bu baax a baax di ci xaari Serigne Bara Cissé bu jaxaaw di ci xaari mbokk daara yi alxuraan yëpp ak jàngkati xasida yi yëpp góor ak ji euh, jigéen ñëpp ñu leen di invité mooy mbootaay yi ak ndaje yëpp ñu leen di invité rawatina nag ñu ngi invité bu baax suñu koo xamante ni kenn la ci ñun kenn la ci dëkk bi am xamante ni kilifa la koo xamante ni mboolem yu baax yu am nii dañ ko ko wax muy Ahmed Saliou Nasruddin koy invité bu baax ak Serigne Modou Ngom moom mooy suñu baay bi daara Serigne Abdoul Aziz Sy al imam imam Moussa Kayre di ko yëgal kër maam Ahmadou Baro Njigéen ndax lu ñu def ci Thiès kenn wut lañ ci jiitu Serigne muniro di ko yëgal bu baax a baax di ko yëgal bu ja nga xam di kilifa la ak ak njabootam gépp di ko yëgal kër Oustaz Ousseynou jiite seen Cheikh Ahmed Tidiane mu nekk ci bopp ak Cheikh Mahamadou Mansour di ko yëgal suñu jigéenu bopp soxna bu Diop di magi Abdoulaye Diop mi fi nekk ministre finance di ko yëgal Moussa Anne di ko yëgal wax dëgg yàlla mboolem Cheikh Sidil Moukhtar kunti wax dëgg yàlla Abdoul Aziz Diop set Seydi El Hadji Omar radiyallahu anhu nga xam te ni ci taxawaayu Thiès moom tamit ak ci dëkk bi rafet na loolu di ko yëgalit Ibrahima Badiane Iran Ndaw nga xam te ni lu baree bari ñoo ko bokk moom ñoo bokk ndey wax naa ko léegi Cheikh Dramé ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax lu ma nekk mu nekk ci lu mu nekk ma nekk ca di ko yëgal mbooleem communicateurs yi di ko yëgal nag borom xam-xam yi nga xamante ni ñooy jàngale ci daara yu mag yi ak daara yi diggu doom yi ak daara yi kawa yi ñun ñëpp ñu ngi ko yëgal di ko yëgalit Moustapha Guirassy nga xam te wax dëgg yàlla moom it ku ne xam na sama ak moom ku ne xam na diggante moom ak xam-xam ndax wax dëgg yàlla ak ni mu taxawoo ci réew mi taxawoo ko tamit gox ba mu nekk di kii dugg ndax koo xamante ne nee nga mboolem lu mu am ci juróomi at yi may naa ko sama dëkk kooku exemple nga ci ci ñëpp xam naa it di ko yëgal lu baree bari ki nga xamante ni tamit mooy ministre Augustin Tine ak euh, honorable député Abdou Mbow di ko yëgal monsieur le maire Ousmane Sarr ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ak maire yi fi nekk yëpp moom nag Alioune Sow mi wax dëgg yàlla di suñu maire bopp nekk ci gox bi euh, di ko yëgal tamit euh, monsieur le maire Pape Diop maire yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko yëgal tamit sa Seck mi nga xam te mooy président conseil yaakaar naa départemental bi moom ñu di ko yëgal bu baax a baax a baax ak Yankhoba Diattara mi nga xam mooy loxol nu joo di ko yëgal mboolem ko kilifa ak fu mën a nekkee rek yëgal nañ leen ko di ko yëgal di waa église bi ndax ñoom suñuy wóllëre lañu lu ñu xew la ñu ñoom lu ñu xew la ñu ñu dem di leen ko bu baax a baax muy évêque bi nekkee Thiès ak mboolem sœur yi fi nekk ak mboolem ñi nga xam te ñoo yëngu ci kër labbe ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ndax ñoom suñuy wóllëre lañu loolu daal moo doon woote bi samedi lay doon incha allah rabbi le 24 ñu ñu ñu koy ànd ak Thiès Info ndax lii eh, équipe bi maanaam comité de pilotage bi lépp lu jëm ci wàllu tas xabaar bi ak yaatal ko eh, Seylatir moom mooy jiite loolu kon loolu mbirum Seylatir la kon ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci ñu ngi ko ñu ngi ko koy yëgalaat bopp di ko yëgal média bi yëpp. DG poste di Siradia eh, nekkal fi njiital réew di ko yëgal Omar bu saar wax dëgg yàlla di ko yëgal euh, euh, Madabo Wade di ko yëgal Ibrahima Wade bu baax a baax a baax ak Pape Lam mm, bu euh, monsieur le ministre Cheikh Kanté waaw ndax Pape Lam wax dëgg yàlla moom tamit ci yëf yi la ci bis bi la soxna day Tické Ndiaye moom tamit ñu ngi ko yëgal bu baax a baax ci taxawaayam ak mboolem jigéen ñi mu àndal mboolem ko fi responsable responsable ci dëkk bi rek ay li góor yëpp jàppal ni sama kàddu gi ñu la ko fekk nañ la ba fa nga nekk yëgal la ko sëñ asakar nasru sëriñ xaadim loo gay dal waaw ñoom ñoom di leen fàtte mukk wax dëgg yàlla ndax seen taxawaay ñëpp ñu la ko yëg ak seen i njaboot ak mbooleem ku nekk ci dëkk bi rek yëgal nañ la ko ndax bis la boo xam ne bisub julli la bisub lislaam la ndax réew mépp fii daje ci promenade bi ñu war a waxtaani Cheikh Sidil Muxtaar ak xalifa yëpp war a waxtaani réew mi ndax réew mi aajana bennoo aajana waxtaan aajo na juboo kilifa diine yëpp nag incha allah ànd nañ ci lii ci ndigalal Cheikh Sidi Muxtaar ba ñoom ñëpp ko nekk na yebal sax ndaw sa délégation yëpp ñëw teew fi ci promenade bi ñëpp 19 heures na leen fekk incha allahu rabbi mboolem autorité yi rek ku ma tudd ku ma tudd yëpp ñu ngi ko yëgal